safoo di seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax eh, di am kontante eh, teewaat fii nga xamante nii daanaka li fi ñëw bëri na mu nekk koo xam ne si ne ku jafe gis la waaye ñun wax eh, waa Sunugal 24 saa yooyu ñëwee rek mu mu yombalal ñu ko ñu koy wax Abdoulaye Diallo mu Serigne Touba tey jii ñu fekk ko ci cabinet am cabinet Njadiri fii ci Petit Mbao docteur ñu ngi lay nuyu bu baax a baax donte da bañ docteur bi sax man docteur laa lay wax ndax yow yaay saafara sa li nga xamante ni moom mooy ay jàngoro. Euh, yi nga xamante ni sonal na bu baax a baax askan bi nuy nañ la bu baax docteur. di la fay euh, Mahfouz di nuyu Dóor sama xarit di nuyu topp borom bopp bu ngande bi ne ko ne maa ngi fay ñëw nag. Mm. na ma xaar na ma xaar bu baax. xam na fu may waxee. borom Sénégal 24. waaw waaye ju baax moom da yàlla dafa def yàlla boole ñu. Mm. ñu bëggante te musuñu gisee mais dam la wax ci benn principe. ma ne ko yaa ma njëkk xam te yéenay liggéeyandoo bëgguma ngay ñëw ci man di ma fréquenté may wax ak yow di wax ak moom man de principe waaw mais ne ko bu ma invité wul ci semaine man naa ko invité su ma invité wul rek man naa ko invité ci semaine bi ak boppam mu ngande boobu <laughs> bu ko coupé de. am na am na solo bu baax a baax du ma ko dagg ndax message la te dina ci dina ci jot dina ci jot ñu jàll ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi. Mm. Eh, donc bala ñuy bala ñuy jàll ci waxtaan bi sax ñuy fàttali que ni euh, numéro yi bala ñuy dugg. Eh, numéro yaa ngi noonu pour ñi nga xamante ni dañu soxla euh, Abdoulaye Diallo mu Serigne euh, Touba donc 77 le 959 28 09 wala 77 203. 08 04 donc numéro yaa ngi noonu dina affiché wu ci ci baaru écran bi donc ngeen mën ci jaar ngir jot ki nga xamante ni moom mooy docteur Abdoulaye Diallo euh, ñu jàll ci euh, li nga xamante ni moom la ñuy ubbee di euh, ndoxu siti li tax ñu tijjee ko nag feebar la boo xam ne si nii mën nañu wax ni moom mooy ndey feebar yi ndax daanaka boo ko amee rek feebar yu bëri daf lay yàpp nga bëgg ñu bëgg rek nga nga daal ci ñëw leeral ci bu baax ak conséquences yi nga xamante ni am na ko. Mahfouz maa ngi lay gërëm ci laaj bi. comme ni nga ko waxee siti bokk na ci ndeyu jàngoro siti mooy indi arthrose parce que moom mooy wooloo yokk yi tukuloo di ko naan mbu ngay am ay problème de genou parfois sax genou yi di laalante épaule yi di metti mun na jox arthrose cervicale mun na tàngaloo sa yaram parfois damay faral di naan moo tax tubaab mënul faj arthrose parce que origine bi siti bi la te ci kàllaama tubaab siti amu ci mu ngi mel ni rab amu ci tubaab te lu am la donc siti boobu moo indi arthrose boo fajul ndeyu mbind gi nag munoo faj leneen li donc kuy faju arthrose ñun bu ñuy faj arthrose dañuy njëkk faj siti trois semaines faj arthrose bi pendant trois mois arthrose lu mu métti métti ñun ci trois mois lañ koy faj te prix bi quarante mille dong la par mois nag les trois mois te font cent vingt mille parce que chaque mois quarante mille la su la neexee nag premier mois nga def siti ak arthrose à la fois boo jël garab yi dina xaw saf tuuti parce que ni muy defaree mbuu bi muy ni muy defaree yokk bi day xëcc ci ci ci ci ci sidit yi ci deret bi ci yàpp bi ci ci ci ndox bi nag ci yax yi pour defar ko mais au bout de deuxième mois bi donc sixième semaine bi ci en cours de deuxième mois de traitement dañuy gis muy tane bu baax siti bi moo perte blanche ci jigéen siti bi mooy perturber règle jigéen mën ne dem sax ba bloquer say règle soo demee ci ñenn ñi di la naan ay rab la c'est pas vrai siti bi day yàq bët xonq la bët wala jaune la bët euh, am couleur jaune wala ndox di ci génn tout le temps say nopp di riir ça dépend nag ci degré yi parce que ay degré la am ku nekk am na siti mais degré yi ñooy sutante siti bi day dagg karaw siti bi day changer ay ongle siti bi day joxe ay pied d'athlète diggante baaraam yi xar wala muy ngay gis lu weex am na ñoo xamante muñ laa sax fekk mu xeeñ boobaa bo siti bi aussi day ni xasan waaw parce que siti bi feebar bi ci traite bi la nekk mais li ne ci kaw ay xasan ay heure euh, tubaab yi di ko wax dermatose kooku traitement aussi à part la c'est deux traitements da ngay jël siti jël xasan ak ër benn garab bu tudd xasan ër nga mélanger ñaar yi euh, au bout de am na ñoo xamante nag du trois semaines la ñuy fajo am na ñoo xamante ne deux fois trois semaines la ñuy def siti bi boo ko amee bu lekk gerte da lay bëggaloo gerte trop ci quatre-vingt-dix pour cent patient siti day bëggaloo da gerte siti boo ko amee da ngay wàññi jën nga bàyyi xorom guddi donc nee naa la siti bi day très am doom parce que boo seeyee ndox bi day génn day mel ni beurre bu ñu def ci pool bu tàng siti bi mën na tax boo ëmbee trois mois mu tuur wala deux mois mu tuur wala quatre mois mu tuur mën nga dem ba huit mois sax mu tuur mën nga wasin sax nga gis doom ji deret bi yëpp yàqu siti moo koy def city bi day indi faiblesse sexuelle mais du indi impuissance sexuelle c'est-à-dire city bi boo ko boole nga am problème ci biir bi biir bi tilim ngay seere da lay day rétrécir loo sa sexe jox la faiblesse sexuelle sa ngóor a moom dootoo sax am appétit sexuel dinaa ñëw ci biir bi tout à l'heure parce que city day ànd parfois munoo am siti am hémorroïde wala am siti am constipation wala am siti am colopathie nga am góor c'est pas possible mm-hmm. kooku moom mun nga jël tous les produits aphrodisiaques du monde doo mës a wér mm-hmm. képp ku naan day faj garabu ngóor ngay dem ci moom mu ne la boo jëlee garab yi tout de suite nga wér billaay day wax lu ko neex tant que fajo origine yi munoo am ma ne la siti am constipation wala am siti am colopati am siti am hémorroïde ba pare puissant c'est pas possible siti bi day yàq mëniw góor boo defee spermogramme léeg-léeg ñu ne da nga azoospermie siti moo koy def tubaab du ko xam moo tax ñi am azoospermie yépp mën nañu def cinq ans di faju duñu duñu duñu wér duñu am doom avant ngay faj azoospermie da ngay faj siti bi ba pare li yàqman wi dañ koy faj doog a faj azoospermie azoospermie trois mois lañ koy faje chaque mois aussi quarante mille site bi da joxe asthénospermie asthénospermie moom deux mois mu wér site bi day joxe oligospermie site bi day joxe téranospermie site bi day joxe necrospermie waaye siti bi mën na la jox hypospermie wala hyperspermie léegi nag mun nga am aussi trois pathologies en même temps wala sax kat mun nga am OAT ñu nga gis ci résultat ñu bind la OAT mooy oligo-asténo-tyrannospermie munoo ko faj tànk fajoo siti soo amee OAT bi il faut nga xam ne six mois de traitement ngay def mun nga am OAT ak nécrospermie booba sam waay huit mois ngay faju te nga boole ci muñ waaye boo ko fajee ba pare sa dernier mois il faut sa jabar aussi jël garabu siti incha allah buñ la fajee ba nga wér foo am doom di nga am quantité minimum wala minimal pour nga mun a am doom OMS 12 millions la wax à partir de mais depuis 5 ans changé nañu nee nañu à partir de 15 millions de spermatozoïdes comprendre siti mm-hmm. mën na def ba nga am yaram buy xeeñ boo sangoo léegi léegi danga gis tax même boo sangoo ba pare rek booy fomp sa yaram di xasan mën a dem ba jox la problème boo xamante ne ngelaw biy génn ci ci ci ci yaram bi ngay xeeñ boo jegee ni rek nga gis muy sëqat boo demee ñenn ñi naan la ngelaw seetaan la c'est pas vrai. siti comme aussi bébé dañ ko war a sang xaw ma ban sang nañ koy waxee ci olof. bon ci olof ci ci ñu ngi naan puxam. puxam du premier bain sax am na bain spécial pour bébé. boo xamante ne mag ñi ñoo koy def tante yi bajeen yi quoi ñoo koy def nga xamante ne doo am odeur mun na mun na mun na mun na am ne loolu la sangat bi bu setu nga am odeur boobu. mais cité daf koy joxe. cité aussi da koy joxe. bon cité parfois aussi mun na joxe lii. yi ngay gis seen. fii fii fii sax di weex tàll bu ñuy wax sax muy génne tuflit foo leen gis ñu ngi jël musharna nii siti da koy joxe siti mun na taxaw si bët yi tout le temps di génne lu weex fu ñu la gis yaa ngi koy euh, ngi fomp euh, ñi dëkk diwaan tuubaa walla ma ne Sine Saloum côté Kaolack yooyu seen ndox dafa bari calcium foo leen gis am nañu siti 98 pour cent de la population moo tax ñoom dañoo fonk faju-cité donc même stérilité jigéen bu mënul am doom boo koy faj fajal cité bi ba pare nga doog ko jox garab am doom góor tamit boo faju euh, spermatozoïde da nga koy faj cité ba pare doog kaa faj sperme boo ko mënul euh, boo fa jaarul xam nga nag man gérant service aussi yenn fenkat yi quoi il va encore reprendre mes propos gis nga léegi moom ñëpp changé nañu seen seen seen stratégie ni ñuy wax ñëpp léegi changé nañ ko maa fi njëkk taxaw ne du ma seet léegi ku ne ku ñëw naan la man du ma du ma seet kat parce que xam nañu argument bi ma joxe mooy dëgg gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne képp kuy seet fenkat nga boo waxee dëgg boo waxul dëgg te dafa xaram te yàlla indi na ci alquran ne laa ya'lamul ghayba illa allah kenn xamul lu nëbb ku dul yàlla benn waaye gidal télé en tant que faj fajkat ngay naan ay euh, dëkk bi ñëpp ay seetlu c'est pas vrai sëñ bii man du seetlu su may takk jabar sax du ma ko seetlu sama xol sama xol bu bëggee rek dama ciy dugg parce que bëgguma propo proposer par exemple femme bi mariage ma xool ma gis baaxul mënuma dellu ginnaaw parce que boobaa damay tas yaakaaru jigéen bi dama ciy dem rek te yàlla tax man moom gisuma lu dul yàlla man xam naa ne yàlla xol lay fay te man xam naa sama xol moo tax man soxlu ma sax soxlu ma sax moo tax tout le temps may bakkoo inna alladina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu tatanazal alayhim almalaika an laa taxaafu wala ku ne yàlla mii mooy sama borom te ngay jëf lu baax bul sa bopp foo nekk ay malaaka ñuy nekk yow di la protéger di la aar bu leen tiit bu leen yoxee boole ci nag na nga am ngërma way jur comprendre nga euh, ci gàttal lii laa ci mën a wax pour l'instant voilà mais tout le temps nag damay conseiller bu dee indi nay xasan heure na borom aussi jël deux traitements yi site xasan heure xasan heure nag benn médicament la dem sax ba ngay boy góor yu bëri fii day tooy di boy nit ki dafa ko war a faj Sénégal nag boo tëddul rek dem hôpital ah, entré rek feebaroo en tout cas am na solo bu baax a baax euh, loolu moom mooy euh, City ak conséquence am mm-hmm. donc mu nekk nag loo xam ne si nii lu doy waar ndax li nga fi lim yëpp moom xam naa bi ñàkk ne ku déglu rek mm-hmm. euh, di nga ci di nga ci gis di nga ci gis sa bopp ndax City moom solo na nit ñi day indi boy boy xam nga boy ñoo xam ne seen deret seen bakkan ah, ah, bor waaw bakkan bakkan ah, bi génne deret waaw mm-hmm. waaw dafay faral dafay faral di am léeg-léeg ñu ne tàngaay bi sax moo koy indi euh, ñu wax ci leneen loo xam ne si nii tamit euh, bëggoon naa ñu ñu ñu ñu sori ci trop ak conséquences yi nga xamante ni tamit daf koy am comme ni ñu ko defee ci siti bi rek muy colopathie moom tamit nekk na feebar boo xam ne si nii daanaka sonal na askan bi bu baax a baax docteur nga nekk na ko ci yàlla may merci Mahfouz tey moom dama kontaan ci sa laaj parce que da ma fekk si li ma doon wax tout le temps may naan nit origine yëpp ñaar la bi ak deret gis nga déjà li ma wax ci siti nga gis déjà li may wax ci biir kolopati médecine moo doon dañ ne du wér man ma fen loo leen ñoom ñoom médecin waaw dañ ne régime bi man ma fen loo leen amoon naa benn euh, kilifa ci douane bu doon wax jabaram ah dewuma ci moom day wax rek colopathie du wér parce que <laughs> moom dafa bokk ci ñu ñu nax tubaab yi nax gëmul boppam waaw gëmul boppam moom tubaab yi la gëm te man damaa gisul tubaab lu mu jàngale sax est-ce que ñooñu sax ëpp civilisation c'est pas vrai donc boo gëmul sa bopp gëmul sa mais pourtant dafa sàcc du ñu faju colopathie benn yoon laa jox garab bi ni ma koy waxee colopati benn yoon laa lay naan laa lay laa lay jox garab yi benn yoon koy naan en huit heures de temps c'est fini mu doon colopathie fonctionnelle mu doon colopathie même bu xanaa bu colon bi guddee nag bu yenn guddaay yi mën nga renouveler garab bi quatre semaines après mu fan mais benn prise bi rek mu wér. benn prise benn prise colopathie boo ko amee muy daal biir bi tilim na mooy butit yi seere na mooy am na lu ne ci butit yi même boo lekkee pour mu jàll mu def benn digestion c'est difficile tu as des problèmes digestifs tu as des reflux gastriques colopathie bi day indi ndigg bu métti colopathie bi day indi hémorroïde colopathie day indi rétrécissement sexuel colopathie day indi faiblesse sexuelle colopathie day tàngaloo yaram colopathie day rey yaram ngat da fu ñu gis da ngay da ngay tayal colopathie day lëndëm loo bët colopathie da lay jox bopp bu métti bu dul jeex man nit bu amee bopp bu métti bu dul jeex dama day njëkk raxasal biir ba pare doog laa faj bopp bi euh, kolo xam nga même kuy lekk suukar lu sax mën na ko jox boobu bu métti mën nga bañ a am jabet mais bi ngay lekk day jox boobu bu métti tout boo wàññee suukar sax boobu bi tane bon colopathie mën na jox tànk yu tàng ci suuf colopathie mooy aussi ndeyu feebar yi parce que ça donne presque 37 maladies même asthmatique yi lu tax dañuy wér parce que colopathie baa ngi foofu ñett asthme yi am na asthme chronique asthme sportive asthme allergique ñett yi balaa ma ciy faj benn damay jaar d'abord ci déclencheur bi mooy colopathie biir bi laay njëkk raxas nga doog a faj asthme bi quatre semaines nga wér tout asthme nag mhm. hôpital moo dara mënuñu ko pompe lan lay jox ak maa gëm sama bopp man faale ma tubaab de man samay jaam laa leen jàppee ñuy dafay milliards di construire usine su ma soxlee jin jënd lu moins cher su ma soxlee avion yéeg ci fay lu moins cher su ma soxlee chemise fay lu moins cher nan nii laa leen jàppee ku xamul heure waxtu moom faalewuma la ku xamul sax ku amul cofeel ci Seydina Mohamed ku amul cofeel ci Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul kooku faalewuma la ku bëggul Baay ku bëggul Mor xamoo leen man teguma la sax ngay nit donc foofu nga teg tubaab bi non foofu laa teg parce que boo nekkalee yàlla yàlla nekkal la képp ku nekkalul yàlla lay nekkal ñoom laa ko gisee faalewuma leen sax bu ñu ma invité dañ may invité sax du ma dem nañ ñëw nee naa leen depuis son première émission avec Mamadou Mansour Diop que je salue passage man sama politique mooy nit ñi demee Europe dafa ji nañ ñëw faju fi billahi bari na ay suñu suñu kilifa yi di dem France di opéré ji ay cœur bu ñu jaaroon ci man wér quatre semaines jël opéré da ngay jël ma ne même bu même même bu bal bi bouché woon maa ngi wax léeg-léeg puissance sexuelle noo koy fajee xooloo euh, rythme cardiaque nit ki bu dee ci kaw nag yi ñuy wax fi ay Viagra ñaata nit ci ak ci dee dañ lay jox yow fekk sa kër attanul yenn rythme yi mais nga de crise cardiaque <laughs> eh, day na waar daal gis nga colopathie même hémorroïde mënoo ko faj fajoo colopathie c'est impossible feebar bi ci biir bi la nekk boo fajul biir nooy fajee nooy fajee hémorroïde c'est pas possible boo fajee nit ki trois semaines hémorroïde war na wér même liy génn da ngay borom day sentir ne vraiment multitude delluwaat bi boobu mooy delloo boppam ndànk am na ñoo xamante ne day des tuuti dellu dellu bi li ñuy sant foofu loolu mooy delloo boppam avec le temps bu ñaan yàlla naan garab boo xamante koy delluwaat automatiquement boobu kay y a ci ñun suñu garab amul benn effet secondaire ci rein d'ailleurs man su may faj diabète garab bi mu la jox pour pancréas bi day rajeunir xanaa xamoo même garabu colopathie bi boo koy naan ni muy raxas bi day raxasale rein yi bu dee passoire xam nga rein yi genre passoire la rek mu ngi foofu buy bouché filtre bi mais bu bouchon da koy da koy débouché tout de suite diabète aussi on le bon newoon naa émission à partir du 1er janvier c'est mais je suis revenu à 50000 mënuma ko sama ma ko yokk yokk bi nga waxoon non sama xol mayu ma ko sama xol moo ko may ñaanoon nañ la ko sax képp ku am 0 ak ah. ans 50 000 ngay fay ah. raxas biir fa diabète 50 000 ku ëppale diabète plus de 4 ans voire 10 entre 4 ans et 10 ans wala boo ëppee 4 ans rek 2 mois ngay faju premier mois bi raxas biir 15000 diabète 50000 deuxième mois diabète 50000 pancréas 50000 parce que day fekk pancréas bi yàqu na mois cest à bu dee ëpp nga 10 ans da ngay faj encore diabète ak pancréas 50 50 daawoon naa maye nag jabet bi deuxième mois bi boobu muntu ma ko franchement je peux pas. ko da ngay fay deuxième mois bi diabète bi 50 000 je peux pas mun muntu ko du ma ci génn quoi te franchement bëgg naa ci liggéey aussi bu ñu weddee nañ laaj le grand professeur Noa Cissé bu ñëpp xam il est à Ziguinchor maa ko faj diabète diabète boobu kay 92 ans ko am ñëpp xamoon nañ ko xam nga kooku moom c' est c' est une personne crédible. Mm-hmm. ñëpp xam nañ ñëpp xam nañu dugg leen YouTube ngeen ji euh, bi ngeen tapé Noa Cissé ngeen gis les honneurs de la France au professeur Noa Cissé dañ ko fekk ba këram Ziguinchor honoré ko tant d' autres que je peux pas citer moom lu tax ma koy <laughs> bu la neexee euh, boo de boo ñëwee léegi léegi sama messagerie di nga gis fi ma bindee message moom dafa foog ne ko fàtte sax moom dafa foogoon ne. dama ko fàtte mu bind ma message gis nga bonsoir docteur c'est votre patient diabétique récemment traité avec succès je suis l'ami de Fala Diop fàtte na sax bien vrai que Fala Diop moom ko ñu doon ancien directeur Sonacos de Ziguinchor euh, puis-je vous parler merci xam professeur Cissé bonjour monsieur Diallo c'est Noa Cissé votre ancien patient de Ziguinchor je souhaite vous parler c'est mon ami Fala Diop qui m'a remis votre numéro xam fàttuwal ne man xam naa gis nga ma ne merci papa je suis actuellement en consultation euh, à Touba je vous appelle euh, à ma descente incha xam nga il il avait même oublié que je man du ma ko mos a fàtte parce que vidéo am de témoignage mu ngi sama page YouTube Diallo Abdoulaye te munoo xam ni mel noonu nga nga leen di fàtte. comprendre il y a d'autres personnalités qui se traitaient le diabète d'autres personnalités mais comme ñoom mosuñu def témoignage par vidéo du ma tudd seen tur te puis médecine dafa am ce qu'on appelle secret professionnel xoolal prostate aujourd'hui prostate nga dem ci urologue yi mënuñ la faj raccord lañ lay def sonde lañ lay def man boo amee prostate buy sawla lu bëri je traiterai en quatre semaines boo amee prostate bu tëju je traiterai en amee prostate bu néew je traiterai en quatre semaines boo amee prostate bu tàng je traiterai boo amee prostate bu am góom je traite en quatre semaines boo amee prostate buy métti je traite en quatre semaines benn prostate bu laa mënul faj mooy bi am xeer yi et quarante mille ngay kii dix mille colopathie bi nga wax aussi mun na la cest boo yàggee am colopathie boo bàyyi di lu dis ki ci hernie discale nga jëm boobu ñuy naan L4 L5 ñee bi dafa coincé ci disque yi patati patata hernie discale am ñu koy woowee neex sciatique c'est pas vrai bokkul hernie discale hernie discale la nerf sciatique nerf sciatique la nerf par exemple ci ndig bi lay lay commencé fii à partir de fii wala fii mu wàcc excusez-moi mu wàcc ci fes yi wàcc ci hanche yi di wàcc di wàcc di wàcc boobu neex sciatique de traitement trois mois la. trois mois traitement mu wér chaque mois comme arthrose. hernie discale trois mois à quatre mois ça dépend il faut ñu xool ban aile la. wala C C2 C3 C4 L4 L5 yooyu yëpp dafa am il faut nga dem d'abord xoolal ma nga indi ma résultat bi moom mën laa faj foofu moom j'accepte de collaborer avec les blancs visite moom ñoo ci ay faj bi kay mooy problème comprendre même fibrome su ma lay faj il faut ma xam diamètre colopathie day indi fibrome bee bu tilim day indi fibrome ci jigéen day indi trompe bouchée ci jigéen day indi perte blanche qui pue ci jigéen ji indi naq bu métti ci jigéen comprendre nga euh, ci góor ak jigéen yëpp aussi da leen jox hémorroïde tànk yi tàng tout temps wax naa ko sànq boobu buy métti tout le temps munoo fajee ne yaaroo ci biir daal ci gàttal biir ak deret mooy nit d'accord ñuy jàll ci leneen tudd nga ko léegi sax muy neer euh, neer tamit nekk loo xam ne si nii tamit feebar bu fréquente la euh, euh, waaye tamit conséquences yi tey moom dama bëgg rek nga ñëw ci leer. leer waaw neer ñi gën xam lan ku yëg dara xam ne lii moo comme ni ma la waxee neer neer mun na jaxasoo ak arthrose mun na nekk aussi arthrite neer ak arthrite ñooñu la plupart la ñuy wax ñi am polyarthrite rhumatoïde yax yi. neer yi yëpp am problème boo demee ci médecine moderne corticoïde yi lañ lay jox ngay naan rek douleur yi di wàññeeku fajuñ la de. ñëw ci jàll lañ lay jox. waaw man benn mois bi moom di nga am douleur. lu tax ba six première semaine sax benn mois ak deux semaines di nga am douleur ah waaw parce que garab yi day ñoddanti sidit yi ak yax yi hmm. du yomb. boo tëddee surtout boo yeewoo xam nga da nga da nga fàtt neer yi te garab yi dafa soxlu circuler wala boo toogee toogaay bu yàgg boo jógee day metti parce que da nga toog ci sidit yi da nga traité garab bi circulé def def li muy def day metti mais à partir de six semaines ça y mois lañ koy traité am nañ nag gis naa nag benn cas benn femme de san euh, gisatuma ko mais quatre mois ma xamoon naa ne bon comme quatre mois laa ko waxoon mais je savais que mu ci six mois la jëm mois yi nag woon na et de de France xam naa peut-être dafa dellu France mun na am ne sax yónnee na pour deux mois yi des man du ma xamee client au passage client yi nañu xam ne man duma leen xammee papier bi laa ni xammee moo tax ku ñëw rendez-vous indoo sa papier dama la rejeté sama rab moom loolu rek la bañ ñëw si man indoo sa papier rendez-vous nga naan dama ko fàtte wala fii laa ko bàyyul kooku monsieur digère pas boo la ñëw ci règlement intérieur cabinet bi di ngeen ko liir foofu duma xammee client papier bi lay xamee parce que yow yàgg naa ko wax ñëw leen gis yàlla bi ne ci man ma gis yàlla bi ne ci yéen yi man faj laa mën wérale gi yàlla la jeex na takk ñi nekk extérieur bàyyi leen di ni am na benn booy bu doon tudd liggéey ak moom bu tudd ma Mamadou njaay di manu sàcc la dàq naa am na ñu bëri ñu mu duut ñu nekk extérieur parce que mosoon na yor sama numéro 959 bi moom numéro am c'est 77 700 et quelques duut na fi ñu bëri ba 1er janvier sàcc na nit 50 000 francs dinañ ko jàpp nag amul lu muy def ba ba duma ko tëj kooku moom amul amul amul amul sax kilifa boobu ñu ngi si kii xam na ci dara sax. d'accord nga. Hmm. parce que trop c'est trop sama jaarbaar la nag mais tëj ko man je je ne suis pas dans les conneries man je suis pas dans les conneries man sax sama la tooñ tëj ma. lu tax na ñi di tooñ nit ñi di arnaquer nit ñi mu bàyyi leen di yónni ci samay employé wax naa ko waxati naa ko wax naa ko waxati naa ko sama benn employé warul jël garab ñoom duñu ay médecin dañ may jàppale dong ci liggéey bi parce que mënuma jël appel yi bu leen yónni ci sama employé bu leen yónni ci man xaalis du ma ko nangu ut leen seeni nit ngeen jox leen xaalis bi ñu jël leen garab yi ñoom ñu ut ay cheppe yónni leen wala bu dee ñoom dañuy dellu Europe ñu indi leen seen garab il faut mu am traçabilité man kenn du yónni ci man garab tey laajuma kenn sarax chez moi on ne paye pas le du ñu fay consultation xam nga ñi dañuy naan la consultation 15 000 wala 10 000 wala 5 boo toogee dañ loo feebar xam nga sàcc gënu ko yéen bu ñu la fayloo ticket déjà sàcc la ndax nañ leen consultation ñu ne la 5 000 kay xam ngeen ne ñii moom ñii ay dealer lañu. yéen a commencé nax seen bopp yéen dugg ci nax yi moo tax ñu bëri aussi ñu ngi changé stratégie ba ñu lay naan sax ay consultation privée cinquante mille mm. kan te boole leen ñëwul duñ nekk man boole leen ñëwul ci sama kër gi <laughs> je ne serai pas moi mm. c'est grâce à vous mm. man je respecte tout le monde mais problème bi ci cent personnes ngay recevoir wax naa ko waxati naa ko cinquante personnes ñoo ciy nit vingt pour cent ay seytaan lañu seytaan ci nit ñi la nekk vingt pour cent yi ay rab lañu dix pour cent yi ay yàqkat lañu ku ñëw na gis ci boppam boo toogee rek sama kanam ma yuuxu la xamal ne peut-être avant ngay ñëw ci man yaa trois mois da nga ma doon critiquer kooku moom boo ñëwee rek c'est automatique doo fa gis sa bopp parce que nee naa leen lii don la te waat naa ci xaadima rasul xaadima rasul ma samp li may wax bu dee fen la bu ma liggéey liggéeyati man xam naa ne xaadima soxma samp moo tax nag ma dal ci li may def ma boole ci jub sinon rek sëñ Tuba woonu boppam man bi ma bi ma yokkee kii bi saami sax <laughs> dafa mel ni sëñ dana na yooyu yaay faj walla hmm. ma wàcc déchiré papier bi ma beewaat encore naan à partir du premier janvier jabet cent mille la iya eh, iwa eh, yàlla bu ñu gis suñu bopp ci li ñuy def hmm. yàlla bu ñu bew hmm. yàlla nañu doon ay taalibe rek o passage maa ngi nuyu Cheikh Mourtalla bu sëñ Fallu sama xarit sama wasila sama buntu ci sëñ Fallu mu eh, Serigne Touba la ñu àndal tey comme ni ma koy waxee rek mu nekk koo xam ne si ni ku ñàkk jot la mais ñun eh, saa yu ni ñëwee rek daf ñu ubbil ay bunta Sunugal 24 donc ñuy am mbégte tamit di seq ak moom loolu effectivement am na ku ma bëgg interroger depuis démb ñëw na sama kër gële ah, waaw xam man kay xam parce que ñu bëri am na ñuy gën ci tele yi waaw yow dëgg dëgg seen message mm-hmm. ci ñeneen sax la ñuy jaar dama ko bëgg gis ne ko diw la dama ko bëgg jël émission. du déggoon nga ko man ne duma ko jël parce que yéen il faut ngeen xam ñi ngeen di poser ay question ngeen di interroger ay dóorkat man dama foog ni du génn ci écran di fen ay paa ay borom kër nekk fii di béb béb béb béb pour rek xaalis jaral leen fen ak triande nit ñi dolli leen ay feebar parce que boo lekkee xaalis nit ki te fajoo ko da nga koy dolli beneen feebar ngay interroger ñu nga bëgg maa interroger. je peux pas étendre loolu. mënul mënul man site bu fi crédible. wala télé bu fi crédible du ma la du ma la joxe émission. Mm, euh, d' accord d' accord yaa ngi noonu donc ci baaru écran bi 77 959 28 09 wala 77 203 08 04 donc mi ngi noonu cabinet Ndiadire ñu gën a xuus docteur ñu bëri dañu jàpp ne euh, faj wolof rek ngay def ay maanaam euh, comme yi ngay joxe ni traitement yeeg yu mel noonu mais tamit ngay def li ñuy tuddee maraboutage donc papier pour ñi nga xamante ni waa extérieur. donc ñu xam ko tey ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan tey xam ne tey da ngay def maraboutage ñi nga xam ne ñooy génn di wax affaire maraboutage eh, dàquñu la ko donc papier moom dégg naa ni dégg naa ni amuloo ci morom koy ñi nga xam ne si ñoo nekk bitim réew eh, te soxla papier. foofu ci réew mi te 35 mi ngay fay. ci 35 bi 35 000 kese ngay fay am papier. boo bëggee am papier extérieur carte séjour. sama mbokk moo aw ma nag ñaanu visa. sama mbokk xanaa yàlla na yàlla yombal. sama mbokk Modou Modou yi xam naa dañuy sawar dañuy def ñaan visa yëpp te ñu ngi fi di topp gars yi pour am passeport service xanaa mënuñ ñaanal seen boppam visa. seen doom yi ñu ngi am ak ñëw na ci papier yi extérieur ñi nekk trente ngay fay ñu yónni la ko nga yónni sa parent mu jëlal la ko c'est trente-cinq mille on te bu àggee saafara la rek bu ñu bind ci papier encre la quoi bu yee rek nga def trempé ko ci un litre demi d'eau après nga génne papier bi ndox bi nga defar defar ko ci bouteille def ci parfum jeex na nga ci raayoo 21 jours c'est fini nga am papier. wala wala liggéey déposer déposer papier. ma ne boo moytu sax gars yi ñoo lay woo. Hmm? Hmm. loolu wax maraboutage daawoon naa ko def. Ah. bàyyi naa parce que dama ci doon dil. Hmm. ba un moment dama foog ne sax dara laa. di sol grand mbubb yi comme ñëpp nag di cuuraay comme ñëpp nag yor kurus 1000 ak kurus cent ak kurusu sump di wér nag am nag ay def trois quatre personnes yoo xamante ne dama leen di fay cinquante mille par mois xam nga ñoom ñooy toog ci kër gi sëñ bi kay ah, ñii di ma servir may nekk ngeen di marabu nag mm-hmm. su may gën def sama kaala nag ñi topp ma ci ginnaaw su may dem jàkk mm-hmm. c'est des conneries ngay ñëw nag nga fay ma un million pour ma ñaanal la mel ni maa la ëpp ci yàlla te billaay boobu ma maa gën a di ñëpp ci hôtel yi rek laa dëkk boobu gaboo woon j'ai pas honte de le tuub ku nekk am na jaar-jaar. Hmm. dina am solo solo ñu comprendre ko waaw. ma xëy dama toog benn bés xam ne man ci fen laa nekk su ma dee safara laa jëm lekk xaalis nit ñi. mel ni yaa leen ëpp ci yàlla ñaan nga xam nga ne kii lu mu lay fay cent mille francs <laughs> pour nga ñaanal bu jëloon dix mille yóbbu ci benn daara alxuraan defar ay laax taalibe yi lekk bu ñu ko ñaan rek mu nangu wala bu demee ci yaayam rek jox ko dix mille wala vingt mille wala cent mille bi bu ko yaayam ñaan rek mu nangu comprendre nga et puis parfois nit ki jox la nga ne ko billahi incha dina baax nangam nangam nga gëm loo nga wax wax wax wax nga nit am na indi dañoo con tellement nga ñëw cercle bi ne la loo yaakaar day tas lu dugg sa loxo day génn sa aaju boo ko amee kooku wax aaju yi dootu sotti man de gis naa da ngay mel ni ko yéeg ci garab boo demee ba àgg branche bi nga bëgg àgg nga daal mi kooku ñëpp la yow ngay lekk ngay naan nga naan lu dugg sa loxo di génn yow nga am li nga am doyut trois cent mille lañ lay par weer wala sax moins dix mille francs par jour kooku mën a dundee tey xanaa doo lekk croissant xanaa doo añee coof xanaa doo reere steak haricot vert xanaa doo dugal crédit xanaa euh, doo am connexion xanaa doo am euh, argent de taxi wala njaga-njaay di mille sax doyu effectivement doo mën a dajale c'est des conneries loo yaakaar de sa kooku ñëpp la. donc dañuy dox sa moyen. waaw mais mais kooku c'est des conneries <laughs> bu dee jigéen ñu ne da nga am faru bu dee góor ñu ne da nga am cor rab nga ñëw ci secteur mu ne waay waay kay incha allah bu ñu la defalee lii day jàpp xam nga mu ngi lay fen pour nga ñëw mu liggéeyal la moom seetkat dong la fu muy nekkaatee sëriñ encore gis nga mu ngi lay politique pour nga nga nangul pour pour jàpp mu teg la ay sarax hmm. ay béy mu lekk yàpp. te sarax yi léegi boo yoree saraxu béy doo ko def. te yi au génne ko ñoom ñoom nga koy. ñoom nga koy jox encore bu ñu lekk yàpp ay triant lañu. man su ma lay faj rab 30 mi ngay fay 3 semaines jéem saafara gi laa lay jox cuuraay. 30 000 dong ngay fay. mais nag mercredi ba mercredi laa koy yàq marché gars yi nag. non mais il faut nit ñi aussi ñu wax leen dëgg. on est fatigué xam nga sànq avant émission bi di di door. nee naa la dama koy wax mu leer. publiquement nee naa la bu ma moytuwul tuuba bàyyi Touba bi parce dafa may sonal. damay bàyyi Touba mardi bi dafa may sonal. te li may am Touba man par jour mën naa ko am trois fois à Dakar mais man maa bëgg sëñ Touba. te man man man bu doon sama sago Touba rek laay toog di faj ma ne la mënutuma ko bàyyi sax parce que damay calculer parce que la meilleure stratégie aujourd'hui c'est c'est de diir l'état na ne képp kuy fajkat dootoo wax ci YouTube wala ci télé ñu arrêté loolu deuxièmement ne ñëpp génn Dakar parce que dil bi dafa bëri ñu ngi triandé nit ñi rek ñi nekk extérieur di sonn xoolal wóolatuñ sax yónni seen jabar yi si ñoom jabar bu fa ñëw rafet nga doxaan ko jabaru jàmbur ngay tilimal kër jàmbur lekk xaalisam doo ko faj nga yàq àddunam tilimal këram bëgguma jaar ci yenn mooy yi ma ne la bàyyil ma des Touba parce que xam naa lii man buñ ma joxoon brigade ma réglé lii yëpp ñëpp lay génn Dakar ba pare nag mais booba xam nga duñ ñemee ba euh, kii tuuba hmm. mais ma nekkoon kon bàyyil ma toog Touba daaw hmm. man am naa kër Touba sëñ Fallou macha allah yombalal na ma ma am kër kër gi jar na cent million te vingt deux millions laa ci def sëñ aboobu sëñ Mourtada mu ngi may dégg jënd kër nañ ma ay terrain Touba sëñ Mourtada may ma terrain weetu weetu këram damaa nag xam nga doog xaj naa Touba te sëñ Touba nee na ku fa am ab pakk sax mooy sa kër aljanna ci ndindi may nañ ma fa terrain sëñ Mourtada maay bañ su ma nee cinq hectares sax mu jox ma xaw man damaa xaj Touba ma sëñ Touba moom bëggal boppam moo tax nag lu ma am lu dul moom soxlawu ma ko man moo ma bëgg te gëm naa ne jullit bu nekk jullit amoo coofeel ci sëñ Touba billaay seen jullit des na di nga dem àjjana de waaye firdaws moom doo fa dem a parce que firdaws moom moom mm, d'accord comprendre nga boobaa bu ñu évacuer nit ñi comme couvre-feu bi ni mu amee Dakar Thiès tout court. nañu ne léegi ñoom ñëpp nañu génn Thiès ak Dakar man boobaa ma toogaat sama kër Touba comme ça comme man maa ngi ci dëgg ma toog Touba ma faj nit ñi. ma fajal sëñ Touba mbindee famille yi nga xamante ne dañoo feebar. Mm. man même boo naroon opéré hernie boo ñëwee ma faj la sa hernie muy inguinal muy yatal muy discal hernie discal moom maa ngi conseillé bu kenn opéré ti ñëw leen ma faj hernie mooy fii fii parfois am na ñoo xamante ne day ñëwee bi ñu takk ceinture en deux mois ma faj la quarante mille ngay fay fois deux ou quarante mille fois trois nga wér mhm. kyste ovaire yooyu yëpp kenn opéré ko fibrome kenn opéré ko d'ailleurs fibrome da ngay opéré mu ñaar opéré mu ñaar opéré mu ñaar man boo ñëwee parce que li indi fibrome bi dindiwuñ ko mooy biir bu tilim bi mhm. hmm? damay dindi biir bi li mu tilimaay biir bi ma faj la fibrome mhm. ça dépend nag ci géométrie xam pour xam ñaata moo Euh, ñu gën a xuus ci waxtaan bi docteur ndax euh, temps bi mi ngi mi ngi. non waaw waaw donc euh, ci papier laa koy def. waaw étranger. ci kiis kiis. kiis 10 000 laay def xool kiis ñëpp xam nañu sëriñ yi ñoo koy defal seen doom. Mhm. te même sa doom boo koy defal day fay nag bu màggee. day fay nag da koy xamal mu man 10 000 laa koy parce que j'ai vu que la jeunesse est ñëpp ñu ngi ci whatsapp bi mhm. Facebook bi. kenn jàngutul léegi dans vingt ans kan mooy yor réew mi damay faral di naan xaw ma Frank Luckenberg xaw ma kii créé Facebook mooy le représentant typique de seytaan bi mu ñëwee ba léegi créé Facebook la njaaloo yokk la pornographie yokku ñëpp nekk nañu ay pornographe toog Dakar kii toog Italie ngeen def appel vidéo sexuel jigéen yi gën a yomb rendez-vous gën a yomb ki créé téléphone portable lor nañ nit ñi. lu ci mel ni euh, ak couple tamit couple yi nga xam si day am ay problème jafe-jafe yi loolu tamit yàlla may ci foofu tamit damay bind ci ña jëkkër jabar yu jubóowul wala ñu bëgg a yokk seen bëggeel boobu da nga génne benn facette bi euh, dama si ñaan kër bu dëgguwut deme si ñaan parce que dama bëgg ñëpp am jàmm je crois fii rek laay defee maraboutage à part ça c'est pour avoir l'emploi dix mille maanaam ku bëgg ku bëgg liggéey. Ah, envoûtement envoûtement tamit. waaw ah, envoûtement euh, affaire rab yi nee naa mercredi ba mercredi la koy faj trente mille dong ngay fay traitement trois semaines. benn benn yoon traitement benn yoon rek. non non non trois semaines chaque mercredi da ngay ñëw rendez-vous. Ah, mais 30 000 30 000 moom lépp kenn du affaire rab moom amul yónnee Amérique wala Europe. da ngay ñëw waaw yow rab yooyu tamit bu ñu bu leen nit ne mën na la faj rabaat yi sax say fen. jël rab yi yóbbu fële. <laughs> ndeysaan ku ne naxate la ay saraxal kon nag boo ko waxee rek rawxaan lay génn yaasin boo ko nee rek rawxaan bi taxaw rawxaan ñëpp yor gis nañu bàyyi dof yor nañu dof sax moo ëpp la rawxaan parce que moom rawxaanam dañ def ko topp dof la bu bu bàyyul xaatim benn benn bu mag bu nekkoon tukkuloon ndeysaan moo ñu ëpp xam-xam ñun ñëpp Thierno Baye la tudd Pikine gi la dëkk mm. gaañu na eh, doomam léegi moo fa nekk Thierno Adam Baye maa ngi leen di nuyu au passage gëj naa leen gis nag famille boobu mm. musoon na ne xaatu meere nawat maa ko xaatu meere te ëpp maa toon xaatim da lay yóbbu ci xam nga xaatu meere mooy xaatim mm. da lay yóbbu ba xaatu meere ba fu dara newut bàyyi la fa man moo yooyu yëpp dama ko jël en considération ma bàyyi maraboutage xaatim dañoo xaatim kenn ba jàpp sax man bu ñu ma mënoon xaatim xaatim nañ ma bu yàgg génne nañ ma Dakar dañ ma mënoon tus rek kon kon da nga jàpp ni kaay ñi ngi sa tànk yi di ko laa ilaahi dañ maa mënul dara te ñu nii waa Casamance defoon tir groupé hmm. sama quatre ans yooyu pour génne ma Casamance mënuñ ci tus noonu lay fii dafa am ay marabu sax <laughs> en tout cas en tout cas euh, kontaan nañ trop ci kontaan nañ trop ci dalal bi émission yi bokk na ci daanaka émission yi nga xamante ni yi gën a neex la ci ma tourné ak euh, yow euh, donc docteur Abdoulaye Diallo mu Serigne Touba cabinet Ndiadiri ma may sax ñi nekk extérieur waaw gis nga boo bëggee liggéey même ñi mënul ñëw ci man la yastaxlifannahum c'est le mot le plus long du Coran boo mënul am ci suñu secret pour am liggéey parce que même am na ay alxuraan yoo xaman ne yooyu la bind pour ñu am liggéey mën naa leen jox au moins benn. lees taxali fanam rek cent fois nga ut potu ndox lees taxali fanam lees taxali fanam lees taxali fanam cent fois chaque matin nga def nga sangoo ndox mi boo pare fii nga tooyee même nu jël sa course lees taxali fanam lees taxali fanam lees taxali fanam lees taxali fanam cent fois mu tooy kii bi li nga tooy mu wóolu yow nga def ko 4 jours nga arrêté ci 4 jours yi nañ la woo liggéey mais bul arrêté. parce que boo arrêté rek waaw da dañ lay dañ lay dàq ci liggéey boobu defal ba quatorze jours yu mot hmm. jeex na waaw loolu day moom loolu day yomb na de mus naa ne nit ñi nañu def tabaraka lazi bi yadil mulk six mille six cent soixante-six mais tegaluma lañ ci premier jour du mois premier lundi du mois lunaire boo ko defee une fois rek xaalis day dugg sa loxo doo am problème loyer doo am problème dépense billahi ñi ma ne am nañ ci résultat hmm. ëpp nañu sang ma ci sant yàlla jaamu naa yàlla xam-xam joxe ko jaamu yàlla gis nga secret yi ñuy nëbb dañu naan astra ni day nëbb secret wallahi du secret yi xam nga ban xam-xam la ñuy yóbbu euh, la ñuy nëbb mooy maarifatu billah tuur yàlla ismullahi lazim al azam bi dañ koy nëbb ismu zaat yàlla dañ koy nëbb ismu sifa dañ koy nëbb ismu martaba dañ koy nëbb xaqaagi yàlla dañ koy nëbb xadaraat yi dañ koy nëbb yooyu dañ koy nëbb loolu mooy li ñu war a nëbb mais pas asrar secret jox naa leen sax tuur bu gën mën a gën joxe xaalis amule xelam ma xudu la tudd jël yàlla ko may allah muhammad la mais dañ ko ow dañ ko kii hmm. première lettre allah première lettre muhammad deuxième lettre allah deuxième lettre muhammad troisième lettre allah troisième lettre muhammad quatrième lettre allah quatrième lettre muhammad mu jox la amule xelam ma xudu daf ko cent cinquante huit après chaque prière hmm. ku bëgg nag ma dolli la après boo commencé gis résultat un mois nga ñëw ma dolli la ci ni ngay amee xaalis ni ngay amee milliards ni ngi ba ben xam ñii di nag ay ben am alal hmm. man foofu rek la sama affaire chère <clears throat> munoo ñëw ne ma trois cent cinquante millions ngi nii sanga maam alal fekk nag sangoo sa yaram d'abord doo jaar ci benn cat bi d'abord man damay soo la sangee cat si fini ah du neewoon ci yow cat c'est fini mais nag néew garanti wu ma doo amaat cat de yàlla na nga amaat cat ñaanal yàlla loolu sax mais par trois mois nga renouveler ko parce que bu cat bi dañoo da ngay da ngay loolu rek doy na balaa ngaa faj trois cent cinquante mille kay fajal trente cinq mille nga nga sangu cat mu jeex. léegi nag boo bëggee bay alal bi kooku trois cent cinquante mille la mais te ci garab yi nii dong la de nii ñetti yoon. Mm. jeex na yu ndaawaat ndaawaat ndaawaat ci lekket lañ koy def et eh, boobu ma la ko joxee. nga sangu ci benn di benn jeudi c'est fini. c'est fini tëddal sa kër lépp di fekk si. xam nga balaa ngaa laax jaay laax lekk. man de lépp may fekk si man de du ma génn kër. man su ma gisee naaj rek ma daf ma hmm. may dem juma la. géej naa dem jumaa sax d'ailleurs. d'accord xam naa kat vendredi di ma juma. Hmm. day fekk may eh, nelaw nag. mi ngi noonu docteur waxtu waxtu bi waxtu bi daal nañuy daal daal nañuy euh, dab. Euh, donc euh, daanaka euh, waxtaan bi am na solo bu baax a baax comme ni ma ko waxee. émission bi neex na ndax waxtaan bi leer na te feebar yi nga xamante ni wax nga ko fi tamit yaakaar naa ni nga ko waxee tamit leer na te yaakaar naa ni ñëpp dinañ ci ku ci gis sa bopp. mën na ñëw ci cabinet bi cabinet Ndiadiri donc numéro yi di 959 28 09 wala beneen numéro bi nga xamante ni moom mooy 2 77 203 08 04 lan ngay tëjee docteur lan ngay tàggatoo. à part que avant. 203 004 bi 77 203 004 bi depuis avril ba ba novembre mosul am whatsapp léegi am na whatsapp ñooñu di naan dañ ko woo duñ ko yooyu yëpp ci whatsapp boobu lañ doon jaar parce que dañ ko tëjoon ñu desee whatsappu 77 959 28 09 léegi ku tudd ulimata leen tontu ci ñaari whatsapp yëpp saa yu <laughs> déconné aussi buñ ko daxee naa lañ ko wax du médecin nag. dina leen tontu ci lépp lu ngeen bëgg man moom jot ma téléphone yombul nu n'essayez même pas. léegi nag ñun téléphones yi li ma leen koy jox mooy pour tegtal nit ñi adresse bi. ku bëgg ñëw waaw am na ñoo xamante ne ñu bëgg yónnee bu dee dañoo bëgg discrétion mun nañu wax ak uli li ñu bëgg seen fii sérieuse mu jox mu jël seen tour jël enregistré ko def ci maladie bi ngeen soxla. wala yónnee nii jarul sax mu leen dina ngeen koy wax li ngeen di faju uli na leen wax montant bi ngeen di fay jox leen ko xaalis boobu bu ñëwee rek ne uli laa soxla diw yoon yónni ñu xool lan la diw waxoon nañu waxantoon ak diw mu jox la say garab ba bu accès nga photo ñun déjà dañ la photo sax sur place ñun la sa WhatsApp ñu décrire nañ koy utiliser waaye neex néanmoins bu àggee aussi mun nga mun nga contacter uli mu def mu jox la mode d'emploi mais na nit ñi xam ne aussi ni ngay gisee quatre-vingt mille vues wala cent mille vues xamal ne cent mille yëpp dañuy woote ñoom ñëpp ñu sox nañ ñu comprendre te ñii nit ñi di woote pour xam adresse bi nañu gàttal asalaamaaleykum waaleykum salaam jaru ko sax dama bëgg ñëw si yéen ñu tegtal leen nit ñi nañuy yeewu nag ñu c'est énervant quoi nga téye téléphone plus di une minute nañu ñun dañoo toog fii rek pour am sa sa jot te fekk ñeneen personne ñu ngi ci ligne bi na nga wax lu gàtt nit day am xel quoi xel xel nit day jiital xel am na ay nit ñoo xamante ne da nga foog ne sax ay mouton lañu yàlla nag moo ko wax mm. ulaika la naam bal hum adall y a des gens ils ne sont ni moins ni plus que des troupeaux yàlla moo ko wax du man mm. donc c'est pas que respecté wu ma nit ñi mais am na ay nit franchement mouton sax moo leen gën da ngay expliquer ba bëgg dañu ci toppaat après mais bu ñu la gëddee yow yaa gëdd sa bopp parce que nit yi nag borom xel yi dañuy waxat wa yadribu llahu al amsal linnaas wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin Sunugal 24 ñu ngi lay jaajëfal.